asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw ba ma sante bépp délégation régional bu jóge ci région yi ñëw muy délégation albinos yi ñëw teewee ci suñu bis bi nga xam ne bis la boo xam ne euh, dañ ko seet tànn ko waxtaan ci bëgg ko def pour sensibiliser ki nga xam ne moom la ñëpp jiital muy le président Diomaye Diakhar fay ak ki nga xam ne mooy le premier ministre monsieur Ousmane Sonko jaarale plaidoyer boobu ci sénégalais yëpp di wax ne li ñu fi dajale tey dafa am solo ma bëgg ko tënk pour ñépp xam ko mooy bu ngeen gisee ñii fi nekk tey nekk sama ginnaaw ñoom lañ tuddee association nationale de albinos du Sénégal association bi nag li tax ñu génn parce que bu ngeen xoolee depuis indépendance ba léegi muy 1960 kenn mësul gis ay albinos ci mbedd mi tey li ñu bëggoon mooy jóge fii di place de la nation dem ba mbundu RTS def suñu déclaration mais dafa am ay gàllankoor gàllankoor yi mooy BRT bi dafa tax kenn mënatul jël ci action yooyu et ñu ne li ñuy def mooy bi ñu préfet dimbalee ba ñu mën a ñëw ci jardin bii ñu mën a fexe ba li ñuy wax mu jàll ñu am ci yaakaar bu rëy nag ci press national ndax man damay wax ne ñoom ñooy quatrième pouvoir a ah, li ñu dajale fii nag ay méthodes yu bari la yoo xam ne dañ koo tënk li njëkk a jiitu muy bi ñu créer suñu association en 1997. dañoo ñëw ba 2000 ñu xool ne association bi mille francs rek la ko état senegal di jàppale par at pour 10 500 albinos 10 500 albinos yooyu mënul jënd juróom benn crème solaire pour juróom benn xale fii ñu ne ah lii de buñ ci bëddee continuer dina doy waar kon nañ créer fondation ñu créer fondation ne suñu centre bi nga xam ne depuis 97 américains yi ñoo ñu ko tabaxaloon mu màgget baaxatul nañu wut ay ndimbal pour tabax centre boobu ñu tabax ko pare deux mille vingt deux deux mille vingt deux le centre bi pare ñu def suñuy assemblée générale ñu gis ay nit yoo xam ne ñoom dañoo bàyyi woon ci kuréel bi depuis deux mille ñaar fukki at ak ñett ay nit tabax seen centre ngeen ñëw taxaw ci complicité ay autorités yu nekk Thiès ñu nangu suñu centre jox leen ko ñeenti nit muy ñeenti puune yoo xam ne tey li doon seen devoir mooy seen kuréel ba ñu créer seen bopp muy finance fédération national des albinos du Sénégal ku dugg ci internet bi di nga ko gis di nga xam ne bokkut ak ANAS waar wi yaatu na kenn ku ci ne mën ngaa bay sa waar bu dee li lay yitteel mooy njariñu xale yi bu dee li lay yitteel mooy puune ñu jox ko gëddëm bu dee li la yitteel mooy Poundé ñu jox ko droit am kooku jarul tooñ jarul wuruj jarul nax ay autorité di jël ay faux document ay faux document assemblée général di ko jox ay autorité di leen gëmloo ne ñoom ñooy annonce loolu wuruj la loolu du yoon loolu tey mun moom la ñuy dund mu naxariñu ñu ne nag nit doo ko sës ba mu àgg ci miir bi suñu centre boobu jaral nañu leneen dinañ ko tegaat ci suñu loxo ndax du pour ñun pour xale yi ngeen gis ñu ne sama ginnaaw ñaar téeméeri xale ñoo fa war a jàng ñaar téeméeri xale lañ fa war a dimbale donc ñoo ngi tàllal loxo le procureur de la région de Thiès ñoo ngi tàllal loxo le gouverneur de la région de Thiès ñoo ngi tàllal loxo le parquet de Thiès xamal leen ne dossier ANAS la ca waroon ANAS mooy lépp luy document bu valable ANAS joxe na ko li ñu bëgg nag mooy ñu delloo ñu suñu sant ci lu mu gën a gaawee ndax tooñ weesuwul ñaar fukki at ak ñett terrain bi nga xam ne sant bi fa la nekk sax ñun ñoo ko moom ñu nangu suñu centre jox ko ñeenti nit yoo xam ne mënuñu faa jënd benn banque li ñu gën a métteeti suñuy compte bancaire yi nekkoon crédit mutuel nga xam ne financement DER la dañ ko war a fay à de six cent cinquante mille par mois muy financement ñaar fukki millions ak yu tegal ñu dem lekk xaalis bi yëpp defuñu ko ci centre bi defuñu ko ci Pouné donc loolu du yoon ñiy waxal le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñun albinos yi dañoo bëgg fi nga jaar sénégalais yëpp gis nañ ko fii son excellence Ousmane Ngom jaar euh, Ousmane Sonko jaar Sénégalais yëpp gis nañ dund nañ injustice ñëpp teg ci seen bët dund nañ métit ñëpp gis ñëpp teg ci seen bët tey yàlla moo leen teg fa ñu tegu kon waratuñoo seetaan benn sénégalais di dund injustice benn sénégalais ñi di ko tooñ te ñun dañoo gëm justice su Sénégal gëm nañ ne incha allahu rabbi suñu centre boobu dinañ ko dinañ ko teg suñu loxo. ñooñu nga xam ne nekkuñu ci dëgg dinañ leen teg ci yoon bu loolu weesoo ma ne ñii nga xam ne tey dañ ma jiital dañuy dund ay jafe-jafe yu métti depuis 1960 ñu am indépendance ba léegi boolewuñ leen ci benn benn programme boo xam ne tey dafay soxali ay nit buñ leen di wër mooy élection ñëw na ñu ne xaar ñu dem def ay sacrifice ci albinos yi buñ leen di wër mooy programme politique am na wala buñ leen di wër mooy nañ leen dem seeti jox leen sarax ñii nag am na ci ñoo xam ne sax buñ juddee kenn du leen déclaré ndax seeni waajur jàpp nañ ne ñii duñ mësa a tekki wala duñu dem ndax dañ ciy ñàkk yaakaar ndax yow bu dee da jur doom fanweeri minute kese bu ko defee ci naaj bi day mel ne dañ koy sotti dëwliñ bu tàng kon jàpp naa ne suñu bëggee régler suñu problème ci catégorie boo xam ne dañ koy généraliser du dem moo tax li ñuy njëkk a ñaan mooy commission des droits bu assemblée nationale nañu saytu benn programme boo xam ne benn projet de loi boo xam ne dañ koy proposé le président ak le premier ministre niñ ko defee ci dëkk yu bari au niveau international muy vote d'un projet de loi boo xam ne dafay aar di soxali ak di jàppale ñi nga xam ne dañuy dundee laago bi ñuy wax puune bu loolu weesoo ñuy ñaan le président di ñaan le premier ministre ñi wax ak seen gouvernement bépp programme boo xam ne tey dañ koy yëkkatee ci ñu mën a jël ñii nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw comme ay priorité ndax bu ñu xoolee carte d'égalité des chances yi ñu ko ci am bariwul couverture maladie universelle yi presque daanaka amuñu ko bourse familiale yi ni ko ci am bariwul te man damaa jàpp ne ñii li ñuy renfermé ci ay handicap dafa bari say bët baaxul sa yaram mënut a def fanweeri minute ci naaj booy jàng doo gis boo demee classe ñu teg la ci ginnaaw parce que mënoo gis tableau bi boo feebaree doo faju bu ngeen xoolee ci ginnaaw am na ñu fa toog am na ñu tëdd dañoo feebar dañoo sonn amuñu sax luñ demee hôpital kon damay wax ne bépp sénégalais. dalee ci population bi dalee ci kiñ fi teg tey muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye dalee ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yor gouvernement bi ñu ngi leen di tàllal loxo di leen wax ne injustice bi bëgg nañu à partir de semaine bi di ñëw ñu régler problème mu centre bi ñu delloo ñu suñu centre suñu puune yi mën a dem jàngi ci centre bi mën a nekk ci sécurité mais aussi état Sénégal jàppale puune yi jàppale waajur yi ndax ku mënta bay mënoo jàng amul benn école booy dem tey ñu jox la sa àq ak sa yelleef ndax ña fay jàngale kenn tàggatu leen boo demee hôpital tey mënoo faju ñi fi am cancer di def chimiothérapie amuñu kenn ku leen dimbale lépp ñun ñoo koy lijjantil suñu bopp ñun ñooy daw ñun ñooy ñaan mais léegi sax Sénégal boo demee yalwaani ñëw indi pour dimbale say ñooñ dañ lay enquête dañ lay dañ lay traité de terroriste dañ lay traité de faux et usage de faux en écriture te yow document yi nga am yëpp ay ay ay ay ay ay ministre ñoom ñoo ko signé nee nañ dangay ngay blanchiment d' argent xanaa bala nga man naam ne fa ku saraxatul gumba nga bokk ak yalwaanam ñun bu ñu ay nit dimbalee jox ñu nañu dimbale leen seen ñooñ nga ne ñooñu dañuy blanchiment d' argent ndax lan bañeel ndax lan tromper ay autorité dañoo bëgg ñii nga xam ne muy ñeenti nit yi ñu jël jox leen suñu centre dans les plus brefs délais nañu gendarmerie ñëwee nangu suñu centre nañ leen fa fekk jëlee leen fa delloo ñu suñu centre sinon l'irréparable dana am muy ñun waa ANAS danañ jël suñu disposition demal suñu bopp ci centre bi récupérer ko suñu bopp su boobaa nag lu luñ ci góobee ñu gar ko et defe naa ne balaa ñuy àgg foofu li ma doon wax ci njëlbeen bi mooy am nañu ay autorité jaar nañ ci suuf xeex nañu ba tey ñu àgg fañ nekk xam nañ lan mooy injustice xam nañ lan mooy toroxal doomu aadama xam nañ lañ mooy mettital doomu aadama xam nañ lan mooy teg doomu aadama loo xam ne waru loolu moo tax ma ne yéen ñëpp nekk sama ginnaaw ànd leen ak man ngeen wax ne dañoo bëgg ñu delloo ñu suñu sant dañoo bëgg ñu delloo ñu suñu sant dañoo bëgg ñu jàppale ñu. du yoon ñuy seetaan puune yi di dee ci cancer. ñi war a jàngi dañoo war a jàngi. ñi war a faju dañoo war a faju. vive le Sénégal. vive les albinos.